version sur comme ni ko góor gi lay waxee ñun nag dañu leen di jéem a tënkal taarixu dëkk bii lay di Gossas. Euh, booba borom dëkk Gossas góor gi Alaaji Fall la. maam ci démba Si di ab jigéen ju ràññeeku ci biir taarix bii lay. ki jur sama yaay mooy taaw maam Mati Demba. 1906 nag. Gulet ñuy boole daayira ak Tijaaniya. ñu def seen réunion ci groupe bi man yëguma ko. ñu ni dañ euh, ko def association développement. su ko defee ñu ut président